jërëjëf euh, mbokk internet yi ñoo ngi leen ni nuyuwaat di leen ndokkeel teewaat ci jataayu xam-xam comme ni koy defee dama wax ni jëmm ji saa bu ngeen ko gisee njariñ képp képp képp ngeen di jëlee ci jotaayam ak luy dimbali jaam ñi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 wa rada allahu lasina kafaru bi xaysihim lam yunaalu xayran wa kafa allahu mumina xital wa kana la xawiyan asisan alhamdulilahi karimil mannaan allasi akramana bil quran wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasana wa qina asabu naar rabbana laa tasi qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyoo nuyoo bu sell di nuyoo bu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ bi bés mës nañu di wax man ak yow ci jataay boo xamante ne que yaa ngi doon wax lu am solo ci dindi cat ci nu mu gën a gaawee ndax ne nga ma buur cat de bokk na li ci gën a doy loo xam ni mën naa gàllankoor doomu aadama bi ba mu foog ni sax dañ ko liggéey waaw cat moom mooy lu doy waar ci cat baaxul yàlla insha allah musal ak mboolem jilit lu nag cat lu sew a sew la ndax mbooleem ñu baax ñëpp rek ñaan nañ yàlla musal leen ci ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne cat sama xeet bu dee ñett la ñaare ñëpp cat moo leen dugal ci biir bàmmeel hmm. cat lu doy waar la dana topp gileem ba ci biir kawti cat moo tax am na ñaan goo xam ne ku ko daan wax ñetti yoon bala ngay génn sa kër yàlla dina musal ci bët bu bon ak bët bu aay hmm. ak làmmiñ bu aay mooy a'uuzu bi kalimaatin taammaati hmm. min sharri maa xalaqa laa hawla wa laa quwwata illaa boo ko waxee loolu yàlla dina la musal ci wàllum cat wala nga jekk-jekk di wax subhaanallaahi walhamdulilahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi azim wala nag ngay jin jëfandikoo wen jàkkaadu les yéene kafaru les saxoo nag bi ab zérim lama zaman zikra wa yaquluna innahu la man ñu mahaw ila zikril alamin ku koy jëfandikoo yàlla dina musal ci wàllum cat dina ci musal wala boog ngay jël secret yaasin di ko bind di aay boo def def war waaye loolu dafa am lu muy ànd loo xam ne nag du naqee du neex a wax ci kii bi mhm. waaye képp ku ko jëfandikoo cat moom du nekk ci yow day dañ ba set wecc cat dina jàpp nit ba yaakaar mu tas du jot cat dina jàpp nit bu tàmbaloon ak kër du àgg taxaw mhm. cat dina jàpp nit nit ki kuule na tekk dootu yor te daan jaay këram cat dina jàpp nit nit am yor oto léegi oto bi def sook cat dina jàpp nit bu waree dem visa war a tukki wala nangam mu échec mu faussé te dina jàpp ni ba nit sax bu waree dem jël mu damay dagg bee damay dem Europe wala damay jóge Europe ñëw Sénégal waxtu waree dem ba war a a entre rek cat da koy jàpp ba mujj moom day faussé am gàllankoor. waa sëñ bi ku bëgg jëflanteeg yow pour mucc ci lool cat moom nekk na mbir moo xam ne lu doy waar la. Mhm. mais nag secret yi ma ci mën a joxe dinaa ko joxe. Mhm. yi ma ci mënut a joxe nag moom <laughs> loo mënut a joxe mënoo ko joxe. Mhm. ndax xam dëgg sul xilmi alimin yéen sens dafa ne xam-xam dëgg da ngay fexe ba peeg lu bari mhm. waaye nag fa fooxakulu si xilmin alimin xam-xam boo gis am na xam-xam bu ko gën a féete kaw mhm. moo tax li nekk ci bopp nag moom mën na koo dindi di ko jox nit mhm. li nga mën a joxe rek ngay wax mooy li ma di ma laaj ma lay tontu loolu mu ngi ci alxuraan bi fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuuna yàlla dafa ne boo xamul di leen laaj kon man bu ma xamee. Mm. ba pare nga may laaj te tontu ma. Mm. loolu bàkkaar lay doon ci man. Mm. ndax am na ñoo xam ne bu doon ñoom lu bàkkaar ci ñoom waaye boo ma nekkee borom xaalim borom xam-xam. Mm-hmm. nga may laaj war naa la tontu lu leer te muy lu wér tege ci xam-xam tege ci lislaam. Mm-hmm. noonu la. noonu la demee euh, sëñ bi bés dama dafay fekk nga am gàtt bu weex ba doon defar fii di ci def ay mbir loolu nag sama bët ma ko may nag damaa sob man. am na ñoo xam ni des nañu kon am na ñoo xam ni mën nañoo jëflanteeg ñoom te kenn du du leen tuural deret wala waruñu ko tuur waaye am na ñoo xam ne ala kulli xaal foog ñu tuural leen deret lu tax ñaari teqale yooyu. man ñi ma ñaanal ñu ci ëpp du du ma leen di sar xoray. Mhm. déedéet. lu waral loolu. Mhm. am na ñoo xam ne waruñoo rey. am na ñoo xam ne na ñoo xam ne bu ñu ci may ñu rey rek dañuy am problème am na ñoo xam ne waruñoo rey ginaar wala xaar wala waruñoo rey am ñoom seen i sarax suukar la. ñii tàndarma bu dee wàllu wërsëg la ñii ci ëpp seeni sarax dañuy jël mbiskit def ko ci laget moom fees ak tàngal jaxas ko waaye xale bu du joxe. wala nga wut mburu ab lim lim lim mburu lim boo xam day nekk 644 mën na taxaw jalaal bu dee ku bëgg mbooloo wala nga wut limu kun mu taxaw 70 wala nga wut limu allahu mu taxaw 66 wala nga wut li mu basmala 787 wala nga wut li mu wahaabu 20 wududu 20 haadi 20 muy 60 60 nga dindi saraba muy taxaw 6 muy taxaw 06 sittati ayaamin istawa ala xasi yosu leel wa naar xam sisan wa samsa wal xamara wa nujum musaxarat bi amrihi hmm. loolu te àdduna ñu ngi ko tëggee ci chiffre lañ ko tëggee àdduna hmm. borom xam-xam yi dafa am ak wóote ak wasaara wuute nag dafa yàgg ci lislaam am na ñu ne yàlla bind na àdduna ci juróom-benn fan am na ñu ne juróom-ñaari fan waaye juróom-benn fan yi moo gën a siiw mm-hmm. mooy saxoo 6 boo taxaw 6 boobu boo tegee beneen 6 nekk 66 mm-hmm. nga teg ci yeneen mu nekk 6666 mm-hmm. mooy laab Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam loolu xam-xam la boo xam ne day kawee nag fi may waxee xanaa mu wàcce niveau bi rek moom kay fa nga wàcce niveau ndax man sama boobaa ngi métti man <laughs> li ngay wax nii xaw naa jaxasoo ci man loolu waaw moo tax sarax nit ku ne ak saraxam am ñoo dañ leen digal sarax ñu def ko rek gën a mooy lan sëñ bi loolu. nu ma te gars yi dañ naan sarax baax na. déedéet sarax baax na am na ñoo xam ne dafa am sarax bu ñu a génne ak lu ñu war a génne. Hmm. am na ñoo xam ne bu ñu génnee sarax dañuy mujj nekk ci problème ay xat-xat ndax sarax mbala. Hmm. xam nga sarax am na waxtu guddi am waxtu bëccëg am waxtu yoor-yoor am waxtu suba teel dafa jant bi génn. kon sëñ bi man ku mel ni buur man boo ma xoolee nii tey la mooy sama sarax nii. waaw bu fekkente ne exemple yow da ngay tudd exemple Moodu Njaay noonu bu fekkente ne léegi noonu turam noonu la moom ngay jël bool ko benn turu yàlla mhm. bu fekkente dafa ñaan lu wàllu kaaraange ti nga koy defalee ci basma la mhm. wala boole ko ci yaaxayu yaaxay yuumu mhm. bu fekkente ne dafa ñaan ci wàllu wërsëg nga jël ko def ko ci wayen sura ko laahu nasran xasisan dugalee ko foofu wala nga def ko ci inna fatahan laka fatahan mubinan mm. mooy wàllu ubbeeku mm. wala nga boog nga jël euh, bu dee wàllum comme mbooloo nii nga def ko ci boole ko ci yàlla tiif mm. ci noonu ngay xamee saraxam wax ko ko mu def ko nga xam te tomeg biddiwoom kon nit du ñëw rek nga saraxal ko ne ko demal wala jëndal béy wu ñuul wala bin wala jëndal xar mu jigéen indil ma déedéet euh, ça dépend nit ki biddiwoom ak rawaanam ak lu mu bëgg xam nga mboolem ku gis muy dund ci àdduna rek am nga rawaan Mhm. rab kon sarax si mën na nekk lu néew sax lu tuuti mën naa nekk sax sarax ci boppam mhm. mën naa nekk tàndarma mën naa nekk guro mën naa nekk gerte xott mhm. sarax mën naa nekk sax diw nga peese ay diw comme euh, nattu la ay diw di ko joxe diw yaram yi diw noo diw yi ñuy toggee diwlin waaw diwlin bu fekkente ne koo xam ne da bëgg ubbi place place boo xam ne mboolem lu fa def doy ay litre diw am na noo koy jëndee si sa limu at bu da nga am 34 ans nga 34 litre diw hmm. ak 34 kilo ceeb ak mboq ak tàndarma nga sëgg ci jàng ci benn sorte kanfi bu su ajjuma boo ko hmm. defee foofu bërëb boo ko def day dem kon sëñ bi est-ce que sarax ñiy saraxe mala lu weesu xar ak bëy hmm. est que yeneen sarax yooyu dagan na saraxi mbaam fas nopp si jaboot dama gis léeg-léeg ñoo xam dañ koy génn lu nit sarax ab jullit de mm. lépp loo xam ne loo xaraam la wala lu dagal wala lu salte kenn wala ci la seen mm. waaw ba di la ci saraxlu déedéet ma moom man auzu yàlla na ci yàlla musal musal ci jullit ñi mm-hmm. koy def léegi sëñ bi ñu dem ci wàllu xalwatu di lu sew da gis ko leen ni mën naa dugg xalwa wala nga gis comme day ñàngal xalwa xalwa boo fa duggee léeg-léeg jinne feeñu la wala rawxaan genre genre wax yooyu xam nga xalwa mm. ba tey Sénégal xamuñu lan mooy xalwa ñu ci ëpp bopp. Mhm. dugg xalwa aw tur la. mu ngi ma ne nga tëju sa néeg da ngay nelaw. Mhm. xam nga kër goo dem gis ñuy nelaw kenn ku ne da nga tëj sa buntu néeg. Mhm. dasaa nit ki bu duggee ci buntu bi néeg da danga xam ne ñoo da ci bi néeg. déedéet. bu ne dama bu xëyee suba ak yow nga xëy suba mu xëy suba ne la dama fanaane julli nga ne ko déedéet tooñoo ankay bu ne dama fanaane nelaw nga ne ko nelaw da nga doon jul tooñoo ko ankay bu ne la fanaane naa sëluma yére mhm. nga ne ko lii nga def tooñoo ko ankay ah, soo baa est-ce xam nga li muy def ci biir néeg bi mhm. xam xamoo ko déedéet ki tëdd guddi fanaan ci néeg sax kooku xalwa la nekk xalwa ti mooy tëju rek loolu lay tekki tëju rek mooy xalwa kon am na yeneen aaju yu gën a gaaw xalwatu maanaam yow sëñ bi tey am yeneen mhm. dugg xalwa nit ki li muy ñaanloo am na li muy ñaanloo loo xam ci dugg xalwa rek nga ko mën a ñaanloo. Hmm. man damay dugg xalwa 40 jours. Hmm. tëju. waaw maa ngi ko njëkk a defee Nigeria Abuja tëju dugg xalwa di ñaan kilifa gu mag ñeent fukki fan nekk naa ko ci benn néeg trottoir hôtel bi sax génn ko fa 40 jours en Nigeria Abuja ba ma bis bi ma paree li ma doon ñaanlu ci la faju ci xalwati te boobu secret salaatul fatiha. Hmm. laa duggee xalwa. salaatul fatiha waaw. yaa mooy bi tijaan yi wér. waaw bala xam-xam. lépp da war a généraliser lépp waaw waaw. xaamatan. Hmm. ci arab mooy général. boroom hmm. lépp ngay pek te am na ci xalwatu yoo xam ne waxtu julli yi nga koy def ñett fan. comme bu nekk nit ki doo am na ñoo xam dañu ñaan naan sëñ bi damaa ñaan la ba sonn gisuma dara. fajar tisbaar takkusaan mm-hmm. timis gee xam juróom la mm-hmm. boo jullee waxtu fajar ki nga koy defalee bàqara ba alif laam mim saat taxaw nga julli tisbaar nga defal ko mim saat yaa ma dégg mm-hmm. ba kan fi nga taxaw tisbaar takkusaan nga defal ko kan fi ba yaasin nga taxaw takkusaan mm. timis nga defal ko yaasin ba innaa fataxna lak fatax mu bi nañ nga taxaw timis nga defal fatax naa ba naasi xam nga kaamil bi pare na mm-hmm. nga jàng 41 xatmu bi nga jàng ko 41 xatmu Qur'an waaw ko ci ndoxu sam-sam wut suuf jumaa ju sell boole ko ci loolu képp ku ko jëfandikoo da ngay ba bisu ajjuma waxtu ñu naan allahu akbar ajjuma ji avant na gi daal nga jëfandikoo ko ci lépp loo ñaanu ci àdduna day faju la ilaha illallah fatxul la wàllum ci wàllum ci wàllum yëkkatiku ñëpp dina dégg fatxul akbar waaw allahu akbar si secret boobu secret ñetti fan la xaluta ñetti fan ñetti fan la ñetti kaamil waxtu julli yi loolu kenn da ko attan nit da ko attan nit attanu ko waaye dëgg secret ba ko jug ñu defal la ko nag damay bañ ku jug rek nag. Euh, euh, waaw man kay tiit naa sax nee naa ni nga ko waxee nii est ce que gars yi dañ ko essayé. sama classe gi du ko jug nga def ko. Hmm. waaye waaye ni nga ko waxee nii mbóot ma téye nga ko de. waaw léegi si àdduna rek am na quelque chose. Hmm. ndax booy dugg am na sarax boo war a def. Hmm. génn am na sarax boo a def. bunt buñ tëj fay làmp ba néeg ma xamoo ma xamoo ci kër gi dara ma ne la buur duggal ci néeg bi nga jox ma la fa ne te yow néeg mu sa faa dugg néeg bi lëndëm na. te yoroo caabi yi nga jekk-jekk ne bala dugg lu la fekk yaa yaa sa bopp kon sëñ bi yooyu ñuy wax ci xalwa di ko gis dëgg la rawxaan yu jinne yooyu waaw na loo war a def pour li ngay dugg du la mën a sonal booy génn am na loo war a def pour boo génn mu faju ndax bunt boo gis ci sa àllaka ibaadi hanni fa inni xarib ujibu dawta daa isanan fa lastajibu lii wala yuminu biya laallahum hmm. gis ci àdduna dafa am caabi muy buntu. waa léegi waatul bu yotu mën a bi waay bi xaar. si noonu ci xalwa gi lan la ñuy wut rawaan ki nga ñaanal la. allahu akbar. yow ma jële sa tuutee di ko dat boo ko datee pare def sama talsam su la exemple bu fekkente ne xam-xam-xam dafa garaaw yàlla na yàlla musal ci di jëf nit lu bon xam-xam boobu yàlla na ci yàlla musal. Mhm. mais lasaraar boo ko mënee amul loo mënut ci àdduna. exemple boo gisee boo jëlee turu nday faatu exemple tid. xandaat turam boo ko arrêté exemple bëgg mu tëdd nit ñi yàlla ñu mu musal ci xam-xam yi mu tëdd feebar exemple rek waaw mhm. boo arrêté turam ba pare liggéey ko ci ahamun saxakun xalaxun njesun jig yaay jibrilu xam nga jalaal dañ ko nëbbu mhm. jalaal dañ ko nëbbu ñu war dañ naan ahamun saxakun xalaxun njesun ahamun saxakun ko nëbbu ñaari des ñaari tur mhm. jalaal boo ko ci liggéeye liggéeyee caaluwe xañar teg ko ci kooku daa 24 heures fu mu mën nekk ci yaram bi day dis gan nga fas ko téye ko fu ma nekk ci àdduna bi yaa xam de fii ba Indonésie bu fa nekkee yow nga nekk Sénégal def ko loolu. day tëdd waaw. te loolu ci xalwatu la xalwatu mooy li gën a garaaw ci àdduna waaye xalwatu dëgg képp koo dugg doo lekk loo am bakkan. doo lekk ganaar doo lekk xar. loo am bakkan rek ñoom ñooñu. man bi may su dugg xalwat Nigeria li ma ñaan ñaanal kilifa dama mel ni tur bi. bi ma ko waxee ne ko ndeysaan ñu ngi nuyu baax appartage bi comme Sénégal te may ñu tudd tur bi mu ne ma sëñ bi lan la lay jëndal parce que ginnaaw doo génn ma ne ko mburu ak meew ak ndox laay lekk ba keroog may génn mu ne ma ah mu ne ko ah, bi nga ko waxee waay waa jënd kii est-ce que yooyu crise yi war you no chop mu ne ko non I don't chop because I work this work is very high power you understand mu ne ma yes mm. mu ne if you want to pray for some something it's is only God lépp looy def ci àdduna jëm ci yàlla dafa am aw yoon ni noo doomu aadama yi niñ bare noonu la yoon yàlla yi bare hmm. waaye lépp ci yàlla la jëm bis ma njëkkee defee loo salaatu fàtte bi alaaji maalik laa gént man radiyallahu taala ma tagaat ci ñaari fan gént Cheikh Ibrahima Niass hmm. ñetteeli fan ma di gént Sëñ Tuubaa hmm. ci xalwata gi <laughs> waaye dama continuer ba ko gént gis en suivant bi aajo faju moo tax biddiwu nit ki ak asaraar mooy loo xam ne bu gën di xasee man lu mu bëgg a def ci àdduna da koy def. xam wàllu biddiw ulmul nujuum ñoom seen ak ñoom nangam yooyu. xilmu kasf. xilmu hmm. xawaatim xilmu ba xilmu baatin xilmu ramlu xilmu nujuum xilmu samsul xamar xilmu xilmu nubuwa nubuwa mooy mooy jaara bi Seydina Muhammad sallallahu daan takk nubuwa la tuddoon Seydina Muhammad xaatim nu boo waaw la daan takk naa ko wax tey ñëpp dégg nag ko yonent bi c'est bu mu daan takk sëñ Tuubaa daana takk jaaro ba ci sëñ Musaa ko di boo ko daan gis kaalaam ga ak ñaari jaaraam ya ca loxo ba kon yu nen de déedéet ah astaghfirullah al-azim ñoom seen bopp la waaw ma a xul am na loo xam ne daal mais am na mhm. mais nag nitu yàlla boo ko tiim mën a wax dara ci moom kon sa kër jaaru am na lu am na xaatimu Suleymaan dama ci liggéey loo xam ne man ci xar bu ma ko liggéey ba nga takk ko xaatimu Suleymaan ku ma ko defal man man ngaa di toog takk jaara bi ñanaaw yi daan naaw Suleymaan daan dégg lam daan wax man su ma ko defee yow nga koy dégg mais sëñ bi loolu xañul ci bopp ah déet xañul ci bopp di ay nit la ay nit nga koy def di <laughs> mhm. Suleymaan dafa takk ngelaw li di naaw muy dégg li ñuy wax kastu bi di ñëw picc yi di ciib ciib muy ñuy dégg li ñuy wax xorondo bi nga xam ne mujj na Souleymane danaan yónnu benn picc yi Sénégal di ko tudd woowee Moussa Ndioubli. Moussa Ndioubli xam Moussa Ndioubli dëgg-dëgg turam dëgg-dëgg xóot xóot la tudd. te tànki Moussa Ndioubli googu tànk suuf si mu dégg noonu suuf soosu képp ko ko jël. Moussa hmm. Ndioubli suuf képp ko ko jël sotti ka ci kaso ña nekk ñëpp génn xamuñu loolu. allahu akbar man man de gis nga sëñ bi. yow man dinaa bàyyi def ak yow dëgg yàlla bëgg naa la trop. ndax man yii nga may wax nii man du ma ko dégg. bu ñu wax fii ba suba baat bu ma jaar du ma jaar alxuraan bàqara ba naasi aaya bu ne lii lay jariñ alxuraan alxuraan ci boppam. Mm-hmm. dina ndax émission boo xam spéciale bu ma ko alxuraan damay bëgg sëriñ si jariñu ci. waa jëlee ñi xam man da nga leen di jariñu ci. Mm-hmm. ñaata xisib bi sumun yi roba yi nisu yi isib yi saar yi saar bu ne fa mu wàcc saar bu ne la tax mu ñëw baat bu ne la tax mu ñëw tom yi alxuraan yi sax naa leen wax ñaata la tom yi. Hmm. sadda yi ak matta yi. te sëñ man ni ni koy waxee man ci diine man bu dee ci beneen wàll la ci xam bu ñuul sëñ bi mës nañu toog nga tojal ma ci loo xam ne man. bu yàggee di nga ma yéem xam-xam bu ñuul bu ne ñu bari dañoo jàpp ne boo joxee sunguf rek xam-xam bu ñuul la déedéet. Hmm. ñooñu nit ñu loolu lañu jàpp. boo joxee sunguf ñu ne ah suñ bi xam-xamu ñuul déedéet loolu loolu Sénégal xamuñu xam-xamu mooy ñii dafay bon fitis fitis kat yi yàlla na ci àlla musa wana asbillah hmm. ay jalang ak ay tuur ak yàlla na ci mooy yu bon hmm. loolu mooy xam-xamu ñuul sunguf da dem ci garabu neemaa bi ci garabu limon dëbb ko ba mokk boole su xooloon ya ila ya la jinni boo ko nit sangoo rab bi dañ ci moom limon ak nima waaw rab ni limon garab li ma fi dee fu mu nekk rab du fa nekk waa loolu xam-xamu la. waaw daan nga gis liir bu juddoo ca yee ñu koy tegal limon ci lay. bokk xam-xamu mag laa lay wax. alhamdulilah <laughs> daxaar fu mu nekk day am jinne. Mhm. boo demee ba ci reenu daxaar nga dagg ko boole koog reenu kat jànkome. Mhm. boo ko takkee jinne juban fu mu la gis daw. mais sëñ bi lox jinne taamu daxaar. Hmm? kon lox ñu taamu daxaar ñoom. ah léegi dégg wala fi naan. bu jinne soxlaa ku yëg daxaar nangam nangam. <laughs> ndax dama gis ne garab yi ni ñu bare. non daxaar dafa am ay secret. am nay secret góor. comme ni sump amee secret. fii dégg sump saa dégg sump dégg sump yi su ma demee sans dëkk dégg sump yi sans dëkk dégg yi noonu rek benn ba muy ñaar ba muy sans ak sans xeer xeeru ñuul yi kere yi ni yi nii tabaxee. Mhm. xeeru fi ne ay secret la. xeeru béton yu ñuul yi. ay secret yu doy waar ci wàllu kaaraange. waa ndax xam nga xeer yooyu bokkul ak xeer yi xeer yooyu dafa am fu muy jugee wala am nu muy demee. ma ne la ñam yi ak pomme de terre soree nañ. déedéet. lan moo tax pomme de bàyyi ko fa dem lëkkaloo ak yàpp. waaw euh, mbir a tax de mbir a tax de. Hmm? waaw pomme de terre nag ngaa nam ndawal la moom ak ñoom ginaar ak ñoom ci ndox ci ndox. lan moo tax ndox di ko toggaat. waaw loolu de est-ce que du ñàkk ngor xëj na la. jën ci ndox la jóge ba pare ndox kay raxas di ko togg. man de sëñ bi may jàngal àddina yoo xam ne man. Euh, maanaam dañuy sant yàlla bu baax. Mhm. ñaan la la sëñ sa ndonga. Mhm. di allahu taala. di mag yi murit dafa mos a sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg foo nekk ma nekk fa foo jëm ma jëm fa nekk sa takkandeer foofu laa jeexale ci émission bi. Mhm. sëñ Tuubaa ne ko loolu amul solo li am solo mooy di def li ma digle di ba li may tare eh. sëñ Tuubaa teg ci ne ko loo ma jege jege jege jege defoo li may digle boo li may ki ma sori. Hmm. ne loo ma sori sori sori sori di def li may digle di ba li may tere yaay ki ma jege. ne ko ku nekk ci man ak nekk ci sa bopp ak nekk fi man bokkuñu ak pay yéen murid di sii sa man mu ne ko ku nekk ci sa bopp. ñu balaak sa bopp dunya wa oxra nga farek sa yëpp benn nga def lu baax ba dam jinaani wala nga def lu man ba dam niraani ahasanallahu min niraani bi jaahi xeyril xalxasil adnaani sëñ bi doo jeexale noonu de <laughs> jërëjëf nañ def beneen yoon incha allah rabbi waaw déet mais doo ma ñamal li nga may ñamal ba sama bopp bi ubbeeku nga bëgg ko léegi sëñ bi dimbali ma man maa la ñaan man maa la ñaan ci barke Serigne Bara mhm. laaj bu mujj sëñ bi équipe nationale coow li bari na de sunu match bi gisoo ci dara mën na dunda yaakaar wala man boo junjee rek danaa xam man. jàmbaar lañ indi jàmbaar lañ. Mm-hmm. waaye yàlla na yàlla defal ndam ndax ñëpp ñu ñu sam sénégalais. Mm-hmm. sénégalais yëpp suñu sañoon ku sañoon senegal gagné. Mm-hmm. ndax doonte mbiru saaxir la waaye saaxir ak baatin jamono ji kenn mun mënta dem bàyyi sa morom. ndax yaa saaxiran yaa baatinan yaa waali yaa mutaxalli aslaxana xaali. waaye loo ci gis sëñ bi. li ma ci gis lu ñaan leen mu gañee baax na buñ géñoo xam ndogalu bi yàlla la. loolu dalul sama xel li ëpp solo mooy. li ëpp solo mooy lépp looy ñaan na ñaan mu gën ci yow. waaw. suñ baara dama dama naa xam de. Sénégal bu na nee coupe am nañ ñoo xam ne ñoo ëpp coupe. Mhm. buñ ko andee alhamdulilah ndam la. Bombardier dégg naa tey la war a jàkkaarloo ak Eumeu Sène. bi. waaw jàkkaarloo ma am lu ma joxoon ci suuf yow loo xam ne jëru ma koy wax ci écran ñu bàyyi ba combat bi jege waaw kon sëñ bi tàggoon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu